تيت أمول كنين كل البرم سبحانه وتعالى أها كن أه، لتخبرهم سبحانه وتعالى وحتي على القرآن في الله شك فاطر السماوات والأرض نخيال أمن أكسك ما ميغا خمانتني مو فنتي أسمان أكسوف برام بسيغم موي لات لولي تي القرآن كون مو مي بند بيرنا كوني أمنا يو خمني نكوي ودي ñu ngi weddi ak amam wala ak nekkam subhanahu wa taala loolu moo tax boo demee ci benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan borom bi subhanahu wa taala daf ko wax ne ko digal na ko pour mu xamal ñu li ñu réerle ñun jullit yi ci bis bis bu tey booba يرام برام بسم الله تعالى تغل كو تي نيكو لپ لوما ماي سما جام بي لولو لوكو دغان لا لوكو ليو دوم لا وايي نك دام لين بيند نيوم نيپ بيند لين ني مانام ني بيند لين سي انام بو خامني دانيو نييو سي سيل خامغا كل مولود يولد على الفطره كيف كو جود رك ياغي جود سي يون ياغي جود سي سيلاغي كو جود رك جوليت لا مثلا نيت كو جود اك فومو مانا جود رك جوليت لا ay wajuram ñoo koy def yahud wala ñu def ko nasran wala ñu def ko majus waye nak ñom bima leen bindee ci yoon wu sel woowa ñom biñu ñu ñi daldi shaytané dal leen top nek di leen manipuler ba jaxase leen ba ñom ci seen bop ñu mujj rax seen diiné lolu moy ñi julit ak ñi nga xamanteni ni du ñu ay julit lañ ciy déggee mooy kon am na ci ñuy jullit ñoo xam ne du ñu ay jullit mooy ñi ñuy tuddee ate almulhidun ñoom gëm ñoom ñuy weddi na yàlla amul nit moom bu naan yàlla amul dafa koy wax nii rek waaye profon moom xam na am na lu mu lu muy yëg ci xolam loo xamante ni lu xeetoo gëm-gëm la wéetam gi am na ñoo xam ne ñu ngi koy weddi ba tax na ñu ngi jaamu leneen lu bokkul ak borom bi subhaanahu wa taala ngi jaamu biddéew ñii ngi jaamu safara ñii ngi jaamu jant ñi ngi jaamu wër ñi ngi jaamu nak bo démé fu melni end Inde bu ne borom bi né da manam lepp lepp luma len leen daganal na ko ci ñom ñom ñi haramal ko ci seen bop man nga jël wax bu melni end lu melni ne dañ ko haramal ci kenn du ko lek parce que dañ ko jappé comme seen yalla am ci benen gox bu nek ci ma juumal côté Iran yele ñom sax fax li ñi tuddé kaña kaña yi duñ ko rey ñoom dañ ne kaña doomu yàlla ci seen yàlla yi ñu jàmm loolu moo tax ñi nga xam ne ñooy bokkale yàlla bari ci aalam bi kenn ku ci nekk ak ni mu koy bokkaale ba dem nañ sax ba suñu gox yi ñi nga xam ne ñooy nekk ci école yi nekk ci niveau secondaire léegi léeg ñi am yenn professeur yoo xam ni dañuy dugg ak ñoom ci yenn sujet yoo xam ni masalan moo xam ci wàllu science la wala ci wàllu philosophe la di dem bay bugg dugg ci sa mentalité di la gëmloo ni lu am rek amna lu ko amal comme lu am amna lu ko amal kon yàlla ci bopam bu amé it amna lu ko amal ben amul wala bu amé amna na fu mu jógee loolu nag lan moy layal na borom subhanahu wa taala dafa jitu jitu bo démé ci murshidul muin ibnu ashir dafay wax ne yajibu lillahi alwujudu alqidam kadal بقاء وغنى والغنى المطلق عنه وخلفه بخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصل وفعل فيو حني يلا دفا ورتي موم سبحانه وتعالى لي ني أجيتو اك جيتو يلا يلا بو الوان لون رك بروبليم ام واي جيتو غي دودون جيتو غو خامني دو امو تامبالي بو غو غا امي تامبالي رك على كل حال ديغا مسا ديغو كوني يلا في لا ci gox nangam gox xeetu nangam wala nangam ak nangam foofu la jóge kon amam lu war la amuk yàlla lu war la waaye jiitoom it lu war la li nga xamante ni mooy des goo xam ni amul fa mu yem loola it lu war la ci yàlla li nga xam ni mooy koomal goo xam ni rinal mutlaq soxlaalul kenn dara loola it lu ko war la ndax yàlla bu soxlaaloon bu soxla woon maanaam su fekkoon ne am na mu diko wuti kon du mat yàlla du meuna yilif aduna bi nit ñi duñu meuna tollo lim aduna bi di doxé ci ci ci ciobarem loola du mën a nekk wuute gi muy wuuteeg mbindeefam yi wuute goo xam amul misal manam yàlla dafa wuté masalan léeg-léeg ñu ne nit ci dafa xonk ci dafa wéx ci da ñuul ci dafa xéréer يلا أمنا أي ملوم ملوم يوي موي أسماء الله الحسنى يجي ديك الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المت... يجيب أي ملوم لك القرآن الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى وقل الله على العرش استوى تري الله سبحانه وتعالى ترمي turam bi nga xamante ni mooy Allah mën nga ni boo doon ko jël comme état da nga naan mooy président de la république premier ministre am mooy rabb moo tax nit buy ñaan benn bu ni allahumma foog ma ne yaa rab allahumma wala yaa rab kon ñooyu yëpp tur yi ci nga xam ne melo yi ci topp yëpp ñoom latif ak ñoom ñëpp lañuy liggéey pour ñu valider ko foog ñu jaar ci rabb rabb mën a valider pour mën a yegg ci borom bi subhanahu wa taala mooy tur wu mag bi mooy allah mooy lafdul jalala nga gis ne bu ne alquran ne arrahmaanu ñeen ni ñu xamul defe ni yàlla ci boppam moom daa nekk ci dafa nekk ci arash ala arsh istawa anu arrahmaanu yàlla mi nga xamante ni mooy rahmaan mu ngi yemoo ci fu ñuy wax arash arash mooy pay yàlla ñi déggul alquran jàpp ne yàlla jëmm la joo xam ne mu ngi ca aras yàlla bu newee ca aras kon day doon jëmm ju ñu mën a teg bët wala ju ñu mën a laal wala ju ñu mën a daj te yàlla kenn du ko gis kenn du ko laal kenn du ko daj dañ koy yëg loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa mu demee ba ne alquran naan kaana qaaba qawsayni aw adnaa jege na yàlla ba mel ni ba mel ni uh, fett boo ko lemee ñaari bant yi ni ñuy jege woo noonu la def ko doon yëg mu ngi koy yëg mais tegu ko bët bu doon yonent dafa gis yàlla comme nii kon yonent bi man a na yàlla nangam la mel leeru nangam la daf koy yëg da yëg yëgin boo xam ne moom wóor na ko ni fii mu nekk nii moo yàlla yàlla dorong kenn doxul seen diggante loolu moo moo tax góor gi doon wax naan raal mawla faqat tafa kulla diin mais yonent bu gisoon yàlla nii kenn ko mënu ko gis ci bët bëtu xol lañ koy gisee mooy yëg lay doon léegi yàlla buñ nee yemoo na ci yemoo na ci arash mooy mooy melokaanam boobu ñuy wax rahman rahman mooy firi mooy tekki xéewal ku ne xam na ni nit pour nga dimbali sa morom il faut nga féete ko kaw moo xam ci loxo la moo xam ci doole la moo xam ci connaissance la foog nga am foo ko pour li nga koy dimbali foog nga féete ko ci kaw oto sax bu poussé bu bu bu paanee foog ñi koy dimbali ñu am kàttan loola yàlla it pour moo mat yàlla ba mën ñoo jox li ñuy soxla ci ay xéewal yëpp foog mu tiim ñu lan la ñu tiimee mooy melokaanam boobu ñu naan rahman kon da nga naan mooy melo bi nga xamante ni moom moo représenté yàlla ci kaw arash comme gouverneur lépp li nga xamante ni mooy xéewal yi jaam bi di soxla ci wàllu dund ci noyyi bi ci dox bi ci euh, nelaw yi lekk bi ci naan bi ci wërsëg yi dégg nga ci yëpp xarakaat yi lépp loo xam day dellu ci xéwal rek kooku ci rahman lay jaar dafay xaw a mel ni ku mel ni ku taxawee comme ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur nga xam ni lépp lu aju ci wàllu xéewal moom foofa lay jaar moo tax yàlla bu toogee woon ci rahma bu tooge woon ci arashi euh, melokaanam boobu ñuy wax al kon mara day tali aduna bi dañuy dé rek comme ay weñ deret du fi jeex dañuy maanaam dutul du mo nek sa al muntaqim moy ay fayu ji wala mu togué fi ci qahhar mara day tali kon aduna bu du exister légui nak kom mom dafa bëgg jami ci am yërmande ci ñom mu jël melom bi nga xamne moy rahmanu tek manam affecté ko ci arash mu tok fa nekkal fa jami mbolem luy kawni yëpp ñom ñi ngi ñi ngi jëlé ndimbal ci melokanam bobu di rahmaan kon motax ñi ñu naan yàlla kenn du ko gis kenn du ko daj dañ koy dañ koy yek subhanahu wa taala legi nak ngon mom wote gi mu wote ak minde fi lu war la ci mom ci ludul meloka melokaan ak kennug jëmmam ci ji waxdatu zaati kennug jëmmam ji nga xamni kenn du ne ni la mel lola dafa war ci mom bu lola amul won rek moy liñ doon wax legi lu mu bëgg it mu am am katan am kattan kattan goo xam ni amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem ba lu mu bëgg mu am loolu it dafa war ci moom dégg dafa war ci moom waaye du dégg comme nopp gis dafa war ci moom ndax yi yëpp bu amul woon kon li koy réere ci àdduna bi dana bari comme yi yëpp nag am na moo tax moom mu mën ñoo mat yàlla mën ñoo yilif mbooleem liñ fi wo liñ fi joxoñ di ko di ko gam-gamle ak yàlla rek loola seytaane moo nekk ci biir seytaane moo nekk ci biir di jay ñooñu moo xam ñuy jaamu ak lu ñu mën a du mën a doon ak ñi nga xam ne dañu koy jël wutal ko doom ñoom ci loolu ñuy woote wutal ci yàlla doom teg ci ay pano yoo xam ne dañ ciy ñaan yàlla de leen ciy fekk si waaye seytaane ba mooy mooy mooy am doole foofa loola nag maanaam day doon ak jay ci ñoom ak jay la ci ñoom pour mu mën leen duma ëllëg yan nañ ci yàlla musal ni yi ci moom yii di ñëwit noonu la jommee ci moom موي نياك ام نياك ام لو جام لا يالا العدم الحدوث ساسو لو جام لا سي يالا يالا بو ساسو وان موي لي ني واخ كون سينغالي نو ديف ني ليجنت في لا جوغي اك نانغام اك نانغام اك نانغام ليغا خامتاني موي جيهيت لو جام لا سي موم الفناء بس nga بو خولي الحدوث مانام ليغا موي ليغا خاني موي العدم ñàkk am mooy safaanuk wujud amam li nga xamante ne alxudus sasu mooy safaanuk mu tuddati mooy mooy sa alfanaa kon mooy safaanuk baqa jeex mooy safaanuk des fi li nga xamante ni mooy aajowoo yittewoo soxla dara yàlla du soxlaal kenn dara mooy mooy safaanuk maanaam contraire غنى المطلق موي كومال جو خامني امول فوميام او يصبح ماؤها غوا واي تاميت شي كاو لول ييب جوم نا سي موم موي يامك نييب موي يامك جامي ديديت بوكو نا سي ولا تلي ولا ريري دارا ييب دافا جوم سي موم ولا دي ولا تخ ولا غومبا ولا لو ييب جوم نا سي يالله سبحانه وتعالى yooyu yëpp nag buñ ci jigéen ñi ñëw nag ci li nga xamante ni moom mooy ay xujja yoo xam ni mën nañ coo moom la ñuy mën a tontoo képp koo xam ni mu ngi am def-def le ci ndax yàlla am na wala amul wala ndax yàlla dafa sosu wala ndax yàlla benn yàlla la li ci gën a bari sax ñi dellu ci wàllu xel ñooy waxe noona ci wàllu falsafa wala ci wàllu science ñooy dofloo ñooy dofloo gone yi surtout gone yi nga xam ne ñu ngi toll ci wàllu jàng ak ci wàllu gëstu moo tax nit jullit dañ koy préparer yar ko waaw tënk xelam ci am na loo xam ni dafa yegg mu naan moo tax mën a wax naan xalaat leen ci mbindeefam yi te bu leen xalaat ci ci jëmmam ji moom ci boppam ndax mënuñu ko daj subhanahu wa boo demee ci ki nga xam ne mooy imaamu Shafii radiallahu anhu dafa am benn garab bu ñuy wax pompaneen mu ne boo xoolee li nga xamante ni mooy mooy ben benn la melokaanam benn la xetamit benn la waaye sax woowu ñuy wax duudul xaz mooy sax woowu nga xam ni am na benn matière bu ñuy wax soie soie boo xoolee boo demee ci réewu arab yi xam nañ ko benn genre tissu la bu cher duudul xas boobu bokk na ci li koy produire duudul xas boobu mooy sax woowa bu lekkee ci garab pompaneen boobu moom lam cay génne mooy soie moom la cay génne saay bu ko lekkee pompaneen bi bu fekkee ne lem maanaam tuddati yamb dafa lekk ci garab gi lem lay génne moom bu fekkee ne bàyyi ma la moo xam xar la wala bëy wala nag bu lekkee ci garab googa moom jëmmam moo ci mag maanaam daf koy dolli grèce ak meew yi nga xamante ne ñooy til tilli yeeg rabu àlle yeeg yooyu ñoom bu ñu ca lekkee dafay def ci seen xet ci maanaam daf leen jox xet bu neex ci seen ñaq ak yooyu léegi nag day laaj yooyu yëpp nag nan la meuna nekké ci ben garab garab go xamni da xëy rek soxfu tamul fum jige man ta nek léegi nañu set garab googu fan la jóge bu ñu démé ba set ko dinañ xamni li liko créé mënul doon min def bo démé ci imaam jaafaru sadiq bokku na ci layam bi nga xamanteni ben kéfer bo xamni da fay feñal julit ñewon na ci mom ba mu ñëwee ci moom ne da koy laaj lan mooy waral nekkug yàlla amug yàlla subhaanahu wa taala mu ne ko ndax mos ngaa war mos nga yéeg maanaam yéeg luy daw ci géej am gaal la wala batol wal mu ne ko waaw mu ne ko mos naa yéeg ci géej ci gaal di daw ba ci yàgg mu daldi xar géej gi daal di koy xar bi ko géej gi xare bant yi daal di tasaaroo nee na ma dal di jaxle lool bi ma jaxle man daal dama ne nii rek daj ci wenn bant rek daal di cay jaxan avant loolu maa ngi ci kaw ndox mi di flotté waaye bi ma nekkee ci ndox mi di flotté boobu nag jàppoon naa ni damay faatu jàpp maanaam demoon naa ba gëmatuma ne daal dinaa dund waaye nag bi may séenee bant yi di ma jege may xaw di am yaakaar ma demee ba tee ci bant bi jafandu ci vague yi di ma sànni ba sànni di ma sànni ma dem ba daal di teer waxee loolu bari imam jaafar ne ko léegi yow waxtu wi nga xam ni tëmm nga ci géej gi benn instant yow jàppoon nga ni dangay ngay dee lan moo taxoon nga daal di jékki di amaat yaakaar ci loo sukkandiku woon te moom nee na yàlla amul lan moo tax nga ya abaat yaakaar ne di nga dund te wóor na la ni nit nekku fa yow sukkandiku woo ci jinne te it bant yi sore woon nañ la jamono jooju mu ne ko ah, xaw ma ko de mu ne ko kooku yàlla la li ngay wax nii du dëgg ci yow parce que bu doon dëgg la ci yow boo gëmoon ne yàlla amul dëggantaan doo am yaakaar ne di nga am lu la sauvé yaakaar gi nga yaakaar ne am na lu la mën a génne ci géej gi te booba gisuloo fa benn mbindeef kooku mooy yàlla mu ngi ci sa xol da nga koy jéem a da koy da nga koy jéem a minimiser waaye am na lu nekk ci sa xol kon moo tax nit ko képp ko nit buy weddi ne yàlla amul rek loolu au profond du dëgg ci moom waaw dafa am benn cause bu muy défendre mooy yi xew ci àdduna bi li ñuy tuddee ghazwa fikriya dafa bari léegi ci àdduna bi ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy dox ci wàllu xalaat dégg nga bugg a jël nit maanaam bëgguñu nit am gëm-gëm ba ci franc yi ngay gis sax dañoo gëm dañu li gëm seytaane lañ gëm seytaane la ñuy jaamu mooy benn borom bët boobu nga xam ni gëm nañu ne bëtam boobu mboolem fu nit nekk ci àdduna bi ñu ngi ko teg bët mu ngi ko teg bët ku dugg ci kuréel bi boo ci bëggee génn ñoom xam nañ kañ nga ci dugg ak waxta wa ci dugg ak fa fan nga ci duggee ban deret nga am ban sàngeen nga am yooyu yëpp xam nañ bu ñu bëggee nga dund tey nga dund tey bu ñu bëggee nga dee suba nga dee suba ñu ngi fepp nag ndegam newuñu sax ci jumaa ji waaye adduna bi ak lu mën a am yàlla moo ko tracé moom mooy programme nit ñi kat nit ñi kat lan mooy mën ci ñoom dara ak lu dul mën ci ñoom dara nit bu gëmee ni am na puissance bu ko mën a téye rek moom na xam ne des na ak kóoluteem ci yàlla des na bu ko defee yooyu yëpp jullit daf ci war yar boppam sellal imaanam waaye ba noppi wut ay xujja ay lay jullit day wut ay lay parce que bu amee bu bu amul ay ay preuve boo maytuwul ab ab seytaane wala ab saay-saay mën na doxe ci gannaaw rek daal di fëkk xelam ci lu ndaw rawatina gone yi gone yi nga xam ne ñu ngi toll ci njàng gone bu tollee ci njàng toll ci gëstu dafay sob moom jàpp ne ni lu mu gis rek war na koo lëj matu kooku nag dañ ko war a préparer ko préparer ko ci ci yu bari surtout ci wàllu mantiq préparer ko ci préparé ko ci walu falsafa philosophie islamique dafa am ay ay yo xamni ay téré yo xamni dañ koy bind yi def ay xewaar ay jàmmarloo yi nga xamni moy dox ci digënté ñi jullit ak ñu dul jullit ak nan lañuy def ba man leen yay yooya mu ngi am yooyu nak dañ ci préparé jullit ci walu yëpp jullit bi dem ba xamé di nga xamni waxi jullit la ak waxi ku dul jullit yi nga xam ni dafa wax bind jëmale ci yàlla wala mu wax jëmale ci yonant bi sallallahu alayhi wasallam wala ci keneen ndax jullit la wala du jullit ndax wax ji nañ koy jël mandaxe ko comme maanaam mën ko peser ba xam wax ji fan la tege ci alquran ak ci sunna yooyu yëpp daf ko war a saytu ak ku la mën a jiite sëriñ bu mën a doon bu waxee ci xàqay yonantu wala ci xàqay alquran wala ci xàqay borom bi subhanahu wa taala nañu xool wax ji mu wax ba xam wax ji alquran la ab jullit a ko wax wala déet ndax bari na ñoo xamanteni bo démé demee ci évangile linjiil dind nañ ci yu bari yo xamni day delu ci haqqi yi yonant yi yonant yi su ni nga xamanteni wa waa ay banu israil lañ bari na ci ten téré yo xamanteni bind nañ ci ay wax yo xamni depo wul ak li alquran indi loolu nag lu mat la di ko saytu bu baax bala ñi suñu liman di woyof wala muy doye di wala ñi am sikki sàkk parce que jullit ba demee bay am sikki sàkk ci ci limanam rek kooku am na problème fa mu koy jëmee nag seytaane day ñëw wàllu si ko mu commencé di dugg ci yeneen di dugg ci yeneen ba mu dem ba euh, ba moytuwul mu ñàkk imaanam yan ci yàlla musal yan yàlla sàmm lislaam bi te sàmmal ñu suñu gëm-gëm sàmm sàmm réew mi def ci jàmm ak naataange jaahi nabil mustafa wa ashaabi wal qawli hada wa astaghfirullah azima li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh